mbokk yi topp daara ji assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu si nanu ci sunu jotaay bi nuy wettalanteeg yéen di nafarandoo sunu téere bi di muxtasar li say xisi yi di abdirahman al axdari tey di sunu juróom ñaareelu jotaay ñu ci wettalanteeg daara yi si yidil xaaji malik ci page Facebook bi waaye ci chaîne YouTube bi waaye itam ci seen Telegram boobu ku ci bëgg adresse bo jokkook Serigne Mohamed Ndiaye 77 227 66 99 incha allahu taala moo yewenal wàllu woowi ci gungenu ci daara ji mbokk yi ñu ngi taxawoon ak yéen démb ci wa yaxrumu alayhi alkadibu seex sayidi abdirahman toftal ca wal xiibatu ak jëw bokk na ci xaraam mukallaf mi war ko moytandiku ba du ca tàbbi ndax saabu ca tàbbee rek mën na ca am yaraanga ak yeddeel gu ko lislaam di yedd ndax tàbbi na ci lum ko doon aaye loola ca la bokk jëw alxiiba mooy jëw jëw nag sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko firil bam toogee taalibe ya toog ridwanullahi alayhimu ajmain mu ni leen hël tadruuna mal xiiba mu ndax xam ngeen lanay jëw te nim leen yare woon moom sëriñ bi bu laaj kewaan laaj yu mel nii taalibe yi kenn du nangoo tontu ni ko xam naa ko mais da nga naan rek allahu wa rasuluhu aalamu a ah, loolu de yàllaa ko yonentam ñoo ko gën a xam xanaa xam nga loolu tekkiwul ni xawma ko mais boo ni woon xam naa ko da tëj buntu xam-xam neel rek ah yàllaa ko yonentam de ñoo ko xam bu dee taalibeeg sëriñama bu ko sëriñam laajee ndax xam nga nangam teggi ni taalibe ci kanamu sëriñam na ko ne ah sëriñ loolu de xanaa nu déglu la ci ubbi nga buntub xam-xam bu sëriñ waxee lu tollook la nga xamoon dana confirmer xam-xam ba nga ca amoon bu sëriñ ba ëndee leneen lu ëpp li nga xamoon dinga nga dolli sa xam-xam ba nga ca amoon waaye boo ko noon xam naa ko ñaar yooyu yëpp tëj nga ko sallallahu alayhi wa sallam ko jàngale diggam ak ay taalibeem bim laajtee ndax xam ngeen lanay jëw ñu ni ko yàllaa ko yonentam ñoo ko xam di ko déglu nag ngir mu daan mu jàngal nu lan mooy jëw sallallahu alayhi wa sallam ni zikruka axaaka bi ma yëkkëra ngay wax ci sa mbokk mu fi néwul loo xam ni bu déggoon wax ja du ko neex lu jëw ngay wax ci ginnaaw nit loo xani bu jotoon ca wax ja du ko neex loolay jëw mu gën ko leeral ni fa in kaana fi axiika ma taquul faqad ixtabtahu bu dee la nga wax ci moom day ay la yéwén mi ngi ci moom da ko neexul kay dafay newul kay waaye ma nga ca moom de danga nga ni Malick Mbaye day nopp ya comme leefaay te loola neexul Malick Mbaye te Malick Mbaye newu fi loola mooy faqad ixtabtahu yaa ngi koo jëw waaye wa in lam yakun fiihi maa taqul faqad bëhëttahu bu dee la nga wax ci moom nag ay la yéwén bu ko déggoon du ko neex waaye ay la yéwén daa sax amul su boobaa boole nga alxiba ak alkazibu loolu nag mooy albuhtaan sosal nga ko wax nga ci ginnaawam waaye tam wax nga lu amul sallallahu alayhi wa sallam daan na nu moytandikuloo jëw mii wax na bis ni fa innaha ashaddu min azzinaa li anna zaaniya yatuubu fa yatuuba allahu alayhi wa saaxibul xayba laa yaxfiru llahu alayhi wa sallam nanu moytandiku jëw nanu moytandiku jëw nanu moytandiku jëw mu ni ndax jëw moo yées moo gën a bon moo gën a ñaaw moo gën a rëy bàkkaar ak njaaloo la hawla wala quwwata illa billah njaaloo men ànd ak jigéen joo takkul séq ak moom la nga séq ak moom jëw ko yées ñu ni Moustapha sallallahu alayhi wa sallam li nga wax moom njaaloo mu ni jëw ko yées dal di layyi dal di layyi ni ah kay parce que njaaloo sa borom nga tooñ yàlla la doon tere njaaloo wala bu zina nga tàbbi ci yàlla nga tooñ yàlla nag boo ko tooñee tooñ gi lu mu rëy rëy rëy rëy boo ko nee baal ma mu baal la jàng nañ fi tuub barki démb booy tuub mu lay baal waaye jiw sallallahu alayhi wa sallam mooy wax ni moom danga tooñ yàlla tooñ sa moroom li nga tooñ yàlla boo ko jéggaloo yàlla yàlla mën na la ko jéggal li dox sa diggante ak moom mais li nga tooñ sa moroom yàlla du la ko jéggal sa moroom la lay bàyyee wa saaxibul xiiba laa yaxfiru llaahu lahu xataa yaxfira lahu saaxibuhu te xam nga ni ak jiw bareyaa nag ka koy def ñeme woo dem di ko ko nettali li tax nga ragal ko bàyyi ba mu dem néewu fi ngay wax ci ginnaawam loolaa lay xamal ni bu fi nekkoon doo ko wax kon doo ko wax ci ginnaawam ba noppi jël wax ji di ko ko yóbbulati loola barewul te pourtant loolu nga ko jëw bu la ko jéggalul yàlla du la ko jéggal lii moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni moo yées ak njaaloo jëw baaxul de bi nu yàlla di melal ak mbonam ak ñaawam da ko tegtale ci ku amoon xaritam sës ci moom rëkk faatu ñu yóbbu ko ca margo ba di ko jooyoo ak di ko jaalante am yéene bu ñu xëyee jublu ci defar ga ak denc ga guddi nga fekk ko ca margo ba yóbbaale sa marmet def sa sa marine daldi di lelli fay tolloog toogukaay ba jàpp lupp ba booleeg booleeg sa mbarine daat cay reer lii bi ko alxuraan waxee xelu ñëpp di tey mu ni pourtant lii ngeen ñawlu nii fa këri tumuuhu ba muy tey seen xel nii ci ngeen dëkk yéen ñiy jëw ci ngeen dëkk yéen ñiy dëw a yuhibbu ahadukum an yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuhu gis nga li tax mu ndurile ko lekk yàpp ku faatu donte sa mbokk la parce que ku fi nekkul alxaybatu dal na ko mooy ak fàddu ki faatu itam nekkatu fi alxaybatu dal na ko muy ak fàddu léegi kii wax ci ginnaaw nit mook ki bàyyi ba nit faatu muy lelli ndawalam di ko reere alquran nee na kiif kiif ndaw ñaw kon jëwa ngoog Moustapha sallallahu alayhi wa sallam firil na nu ko alquran firil na ko Cheikh Sidi Abdourahman nee moytu ko yow mukallaf mi ba bul ci tàbbi daa xaram mu ni wan na miimatu ak rambaaj rambaaj itam day ci xaraam la bokk rambaaj nag mooy lépp loo xam ni nit ki dana ko def ngir jaxase ay nit fexe ba mbëkkanteloo Abdallah Jongo ak Gondé ci say pexe moo xam looy wax la moo xam looy def la moo xam looy dox la loola mooy ak rambaaj ak rambaaj moo mii nag dafa xaram ki koy def moom la sariya tuddee alqaatia moom la sariya tuddee annamaam kooku nag sallallahu alayhi wa sallam nee na moom aljana da koy dégg rek waaye du ca tàbbi Moustapha ne la yadxulul jannata qaatia kii du dugg aljana kan Moustapha ni kii teqalee ak di dog ab diggante ñu ne ko kuy dog lan mu ni ki nga xam ni day dog diggante nit ñi te da koy defee ak namima alqatia bayna nasi bin namima dugu ci nit ñi fekkoon ñu rataxoo lool jaxasoo lool juboo lool ngay dox di wax di def ba teqale leen jëf ju ñaaw la dafa haram dégg ko nettali nanu yonent yàlla Muusa alayhi salam dafa am jamono atum maral dal leen mook waa banu maral moy nawet jot baykat yi ruuj tiim seen njiw bëgg ji yàlla téyam doxam ñu def seeni baaw naan def seeni ñaan def seeni saraxe yàlla téyam ndoxam comme Moussa amoon na accès ci di wax ak boromam subhaanahu wa taala bis mu ni yàlla waaw boobaak léegi yow itam ñu ngi lay ñaan am ndox moo wàccee dong jur gi soxla nanu ko tool yi soxla nanu ko ñun ñi soxla nanu ko ndox mi yaa ko moom yaa koy wàccee saa bu la neexee wàccam jot na doonu ko wàcceel ñaan nañ la ko guddi ñaan la ko bëccëg subhaanahu wa taala ni Muusa xam nga lu tax ma téye sama ndox dafa ci seen biir ab ràmbaaj boo xam ne da ngeen koo dooleel sawar na ratax na lammiñ bari na crédit bari na crédit fu neex lay toog woo ka neex tuxalal ko xibaar boo xam ni bu ca kooka jotee dana teqali kook mu jëlee xibaar ba looloy ràmbaaj bu am crédit ràmbaaj boobu nag ci seen biir ngeen dooleel ko bu ñëwee ci Gondé Fall ni ko la Abdallah Jong wax Gondé ni ko wax nga dëgg bu jógee ci gonde dem ci Abdallah Jong ni ko la la gonde wax Abdallah ni ko wax nga dëgg yàlla ni ko loolu laa ko meree moom mais yéen itam li ma leen meree mooy lu tax ngeen nangu muy tas seen diggante nii lu teewoon ngeen jëfandikoo bu la nit indilee xabaar bala ngaa gëm bala ngaa weddi tegal xibaar bi ci sa kanam lëj mbët ko def ni maam suur mu maam Seydi Hadj Malick daan def boo mësaa da ñëw ci ma bëgg ko rambaajee kenn dana laa ma ñëw daal di dem ci gannaaw sàkket wi ku mu njëkk a dajal ne ko demal wool ma bàyyi diw bu bàyyi diw ñëwee mu ni ki doon rambaaje bàyyi diw a ngi nii li nga doon wax dellu ci loola bu ko ñëpp doon def rambaaj wàññiku yonent yàlla Muusa ni borom bi waaw léegi naka ci pexe yàlla ni ko yërëm naa leen waaye nag dinaa wàccee samam ndox ci sart mooy am na ci seen biir ñoo xam ne dootuñ tuddante dootuñu laale ndax liggéeyu ràmbaaj boobu ci seen biir mais yéen ñëpp juboo leen balonte ak nuyonte saafonte akolaatante kenn ku ci nekk li nga jàppaloon sa morom nga ba ko ngeen xaar ma ndox maa ngi ñëw ñu daal di koy def yàlla fekk leen faak ndoxam ba tool yi mandi Moussa dajewaat ak boromam subxanahu wa fam daan dajeeg moom di wax ak moom ni ko waaw ki woon sunu ndox mi moom doo wax kan la ci biir gaañ yi yàlla ni ko kon ma di barambaaj ne bu ma la ko waxee nga di ko ko xoole mbokk yi Cheikh Sidi Abdurahman al Akhdari rambaaj mii daa xaram toxal xibaar yóbbul ko koo xani bu ci jotee. diggam ak fii nga tuxalee xibaar bi yàqu lii mooy an miima ki koy def sallallahu alayhi wa sallam nee na xetuk aljana du ko xeeñ yàlla nañ ci yàlla musal mu ni wal kibru ak rëy rëy ci xaram la bokk mukallaf mi war na ko xam mooy ko rëy wal ak rëy rëy nag danoo wax ni moom itam façon bàkkaar la boo xam ni bàkkaar yi ma fi tudd ak yi ma tuddagul woon yépp bu ci nekk nit ki mën na koy jëfandikoo ba noppi dib waliyu ba mu des rëy mi rëy moom kum ne ci sa xol yow lenni wilaaya doo ko am yàlla ko wax subhaanahu wa taala moo ni kazalika yatbau llahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbeerin ab waliyu du rëy ku rëy dopp waliyu na leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku am luy tollook fépp zarra moo gën a tuuti fépp suuf ci sa xol bii ci ak rëy yow aljana di ko waat doo ca dem bim ko waxee saxaaba yi ne ko ah mu sang bi ñun bëgg na noo am yére yu rafet de bëgg nañoo dëkk ci kër yu rafet de bëgg na ñuy dàll yu rafet de mbaa loolu du ak rëy sallallahu wa sallam ni leen loolu ak taar taarlu la yàlla dafa taaru dafa bëgg lu taaru waaye rëy mooy buñ la waxee dëgg doo ko nangu ak di xeeb nit ñi batarul xaqi wa xamdun naasi booy werante doonte dëgg jibi ci làmmiñ weneen wudul sa wos mu wóor la ni ay la yéwén dégg nga dëgg doo ko nangu da ngay dëgg ba noppi dëgg ci joggi ci loola ku rëy koy def waaye xeeb nit ñi yow foo dem jàpp nga ni yaa war a jiite lu ñuy wax jàpp nga ni yaa ko war a wax yaa ko war a def yaa fa war a dem ndax lan xeeb nit ñi loolu itam ku rëy koy def lu xaram la rëy kon bokk na ci xaraam alxiba an namima alkibru mu ni wal ujbu ak naw jëf naw jëf naw jëf moom lañ daan firee aawlu naw jëf mooy koo xam ni mi ngi góorgóorlu gaa ci ak jaamu yàlla ci julli ci woor yi ci saraxe yi ci jàngal quraan ci jàngale yi waaye li muy def da cee teg bët jàpp na ni moom am na ca yàlla fii ma ne loo xam ni bu demoon euh, dana ca xaj comme texe waaye ku mu amit dana ca xaj pour texee ca loolay naw jëf yow lii ngay defal yàlla nii da nga ciy teg bët loolu nag mooy al amnu min makrillahi te alquran neewoon na lii kum dal doo kenn ku dul ki perte falaa yëmanu makrallahi illa al qawmul xaasiruun yonent yi ñoo gën a jege yàlla ñëpp waaye ñoo gën a tiit seen diggante digganteeg seen borom subhaanahu wa taala jibril mës na fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu toog wala sallallahu alayhi wa sallam fekk jibril mu toog di jooy jooy yu metti yonent bi ni ko jibril looy jooy mu ne ko damay ragal nim def ak iblis xam nga iblis lu ne defal na ko yàlla ci jaamu ko mag ñi nee ñu foo teg sa tànk dégg jamu la jaan mattu la iblis jootal na fa yàlla xanaa kii defal na ko lu ne waaye xoole fi mujj jibril di jooy loolu yàlla bu mu ko dal diggam ak boroomam sallallahu alayhi wa sallam moom itam bindi bëtam di jooy ni ko yàlla subhaanahu wa taala dara da koo saful nii mu def iblis mën na ko def ku ne mën na xool ki gëna bon ci jaam ñi similaak saa mu def ko muy ki gën ci jaam ñi mën a jël ki gën ci jaam ñi similaak saa mu def ko muy ki yées ci jaam ñi loolu ku koy bàyyi xel al ujbu du dal naw jëf dafa xaram yow li ngay jaamoo yàlla def ko ndax danga ko war a def mais bul ko def di ko def njaayum njaayum njaayum bawal bawal rokki mi rokki yalla dal dama la koy defal ci kaw nga defal ma bo ma noppé defal ma bala defal Moy ñi nga xamni bu marché bi neexul julli gee gu xajam lu ñuy julli waaye bu ñëwé nañu jullé gee rek ci ngay xamé ni marché bi neex na tay lolu <laughs> ay jaxan la muni war riya'u u ak ngistal ngistal ci haram la bok ngistal nak ak sew waaye ak ngistal mooy ngay def ak jaamu yàlla du am nag fu dul ci ak jaamu yàlla ngistal amul ci yére yooy sol amul ci kër goo dëkk amul ci soxna yooy takk amul ci oto yooy war ngistal gii may wax naan dafa xaraam ci ak jaamu yàlla lay am dañuy ñaar am na koo xam ne day jaamu yàlla day julli day saraxe day jàngal xuraan day jàngale waaye lim ci jublu mooy bëti nit ñi ak yàlla bëti nit ñi ak yàlla boobu ngistal la wax sirkul asgar bii ngistal la wax riya un li muy def def ci jublu nit ñi ak yàlla def ci jublu yàlla ak nit ñi ngistal gii daa xaram sa julli gi sa jàngal xuraan gi danga ko bëgg booleeg yàlla ak nit ñi te subhaanahu wa taala nee na man loo may defal naan ma bokk koog diw ma ba koog diw fa man amila amalan ashraka fiihi xayri taraktuhu li shariki man boo may defal li ma war a defal defal ma ko man képp ma xam ni man nga ko defal ma nangu ko fay la ko mais boo ne ma bokk ko ak diw ma ba koog diw ana aghna shuraka i shirki mbokk yi ngistal mii daa xaram lii benn la am na ngistal goo xam ni waa ji li muy def muy ak jaamu yàlla suuru ci lenn yàlla moom nit ñi doong li ci suur boobu nag muy bi gën garaw ma ngay dem jàkka ja de ma ngay jàngal xuraan ma ngay xare ngay jàngale de ma ngay ma ngay ma ngay waaye jublu ci yàlla de bëti nit ñi làmmiñi nit ñi nañ ko xam nañ ko dégg la ca jublu bii moo ci yées bii la alquran melal boole ko ci jikkoy nafiq yi wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraa'uuna nnaasa wala yadkuruuna allaha illa qalila ñoo xam ne bu ñuy julli daañu ànd ci biir mbooloo ma raaxaloo ca nga defe ni dañuy julli fekk ñoom ci seen bopp fas nañ ni ñoom julli wunu mais nag nañu ànd di sëgg ak di sëggi ngir nit ñi jàpp ni ñoom dañuy julli bii ci xaram la bokk ñuy ñaar bee mooy bu oyof bi waaye bii ma mujjee wax moom mooy bi ci yées bii moom féq dëgg mooy mel nii di def ak jaamu yàlla te yow sóoroo ci lenn ni yàlla julli gii boo demee sax jàppoo mais na la nit ñi gis rek nga ci jublu nañ la dégg nga ci jublu nañ lay waxtaani dong nga ci jublu loolu dafa xaram nañ ko moytandiku mu ni bokk na ci xaram wa sumaatu ak ndéggatal ndéggatal soriowul lool ak ngistal ngistal mooy ngay def ngir na la nit ñi gis ndéggatal nag mooy nga def sax fu nit ñi néewul mais balaa sa xol a sedd nga informer ko nit ñi <laughs> koo xam ne mën naa fanaane naafila mën naa fanaanee jàng alxuraan mën naa fanaane zikrullahi waaye yàkkamti na bët set ba mu dem ca garam palaas ba toog fanaan hi la guddi daal ndekete ni mu neexee loo ci wax nit ñi nit ñi nga ko doon defal wala sa borom bu dee sa boroom nga ko doon defal matul wax nit ñi kon ki def ak jaamu yàlla ba noppi wëlbatiku lam ca xemmem mooy na ko informer nit ñi loolay assumaa sallallahu alayhi wa sallam nee na ki koy def lam ci bëgg dana ko ca am ndax bis penc yàlla dana ni jaam ñi Malick mbay nii daan na ma defal guddi gu junni rakka lam ca bëggoon nag mooy ngeen dégg ko. mba deg ngeen ko ñepp ni ah ah malik de jambar la won jundi raka ñu daan nelaw mom daan nako def yalla ni ko sa nga ci bëggoon am nga ko ci man sama, sama Allah bihi yowma alqiyaama ay yunadi bihi hadha fulan, amila li amalan summa arada bihi ghairi dan na jëf jëf sangam mais nak leneen la ci jublu won moo ko ca dugaloon mooy ngeen dégg ko comme ko payama ngoog yàlla nañ ci yàlla musal assumaatu mu ni wal xasadu ak iñaane beneen a ngoog bu bon iñaane nga koy firee nag bañ nga firee ko ak iñaan iñaan mooy ak ñee rek garaawagul nit mën na am nga ko ca mais da nga ko ñee parce que boo sañoon am ko mais àggoo ci iñaane iñaane nag mooy boo sañoon moom mu ñàkk ko <laughs> looloy iñaane nit am teraanga te yow boo sañoon mu ñàkk ko yow nga am ko loola ci xaram la bokk loola ci xaram la bokk sallallahu alayhi wa sallam nee nanu kenn ci nun ngëmam du complet lu dul ni lim bëggal boppam ci yiw ci teraanga ci xéewal la yéene la yéene la yéene mbokkam kon bu sa nit sa wëllëre sa dëkkandoo amee teraanga xéewal yiw yéene ko ko yow sa ngëm complété gul góorgóorlu iñaane dafa xaram nit am teraanga nga mébét ci sa xol teraanga ji daal maa ko waroon a am waaye kii daal waru ko woon am jikko ju bon boobu sax mooy iñaane gu woyof gi mais am na teraanga joo xam ni nit da koy am am ku taxaw iñaane ko ko iñaane gu toll ne ma teraanga ji sax xam naa ni àdduna du yàgg ba ma am ko waaye moom it waru ko woon a am lu tax mu koy am teraanga yi ndombal tànk teraanga yi xam-xam teraanga yi Eh, teraanga yoo xam ni borom yoon wa mu jaar ba aw ca ba am ko ay at la at ya mu def yow dooragoo ko nga xam ni kon teraanga ji moom awagoo yoon wa nga iñaane ko ko loola mooy na ko ñàkk comme man ni ma ko ñàkkee man duma ko am gaa waaye moom it bu mu ko fi amee loola nag moo ko tax yées jikko ju bon la du jikkoy jullit sallallahu alayhi wa sallam nee na alxasuudu laa yasuudu foo ko fekk moom ku iñaan xol ba du sedd xol ba du sedd foo ko fekk day ñëpp xar kanam gi mel ni dañ koo tooñ te kan moo ko tooñ kan moo ko tooñ ki doon séddale de subhaanahu wa taala te moom du tooñ mi ngi laaj moom subhaanahu wa taala ñi iñaan ñi ñi iñaane am yaxsuduuna naasa ala ma aatihum allahu min fadlihi lan moo war a waral sa mbokkum jullit am teraanga nga iñaane ko ko lana ko war a waral am yaxsuduuna naasa ala ma aatihum allahu min fadlihi moom lañ wax ni mooy mooy yàlla gi ñu njëkk mooy yàlla xam nga mooy yàlla iblis a ko njëkk def ban moy la moyo yàlla daa rey bakkan wala daa fen wala daa xiiba wala daa am alkibru lan la iblis njëkk moya yàlla buñ la ko laajee neel mooy iñaane ndax yàlla daa teral maam aadama ci kanamam nga jum amul woon moom iblis iñaane dugg ko fa la yàqule fa la moo tax bàkkaar la boo xam ni jarul xeeb iñaane mu ngoog daa bokk ci yiis war a xam moytandiku ko yàlla nañ ci yàlla bokk musal mu ni wal buxdu bu dee noonu lañ ko bindee mooy firi ak mbañeel mbañeel xam nga jàngoon nañu ci ginnaaw wa yabgada lahoo booy bañ kenn bañ ko te yàlla tax bañ le ko yàlla kon bu ko indiwaatee fii mooy ngay bañ koo xam ni danga ko teg rek ci sa bakkan waaye bañ le woo ko yàlla boobu ci xaram lay dugg am na ñu koy bindeek wal buxlu bil xaa i summa laami buxlu boobu nag mooy firi nay nay moom itam ci xaram les koy dugal ndax moom it mooy ko am ba diijal tudd dimbali ñi mu tane xam nga ki bari le lool waaye du joxe du saraxe du maye du leble ba faqir yeeg miskiin yi mujj daje reeñoo ni kii nañ ko bàyyeeg li mu am te jàpp ci yàlla kooku li ko dal mooy al buxlu nay moom yi bu dee moom lañ bindoon dafa xaram bu dee al buxdu mooy ak mbañeel nga di ko siq ak ku yàlla am te bañ le ko yàlla bañob comportement xanaa jëmmam ji nga bañ loola loola loola dafa xaram alquran nee na bokk na ci li tax aljana neex mooy albuxdu mi amu fa aljana doo fa gis loo bañ doo fa gis koo bañ doo fa dégg loo bañ wa nazaana ma fi sudurihim min xillin ixwaana ala sururin mutaqabilin nitu yàlla bu mag bu wax sufyaanu thawri daan na wax yéen ñiy jàng yéen ñi sàkku xam-xam moo xam xam-xamu sariya moo xam xam bu mu mën a doon soo bëggee am xel mu neex jarul ngay naan genn kiis bokk na ci lii neexalum xel yow bul iñaane kenn lenn day neexalum xel Sufyaanu Sawri moo ko daan wax nee na bokk ci lii neexalum xel loo jàng mokkal ko loo mokkal doo ko fàtte mooy bul iñaane kenn lenn la takun xaasidan takun sari al fahm mu ni wa ru'yatul fadli ala al bokk na ci xaraam wa ru'yatul fadli gis ngëneel ci sa bopp alal xayri ci kaw keneen loolu mooy lan jàpp ni dangaa gën kenn koo romb jàpp ni yaa ko gën def nga lu xaraam yow ki ngay gën ak ki lay gën laajuñ la ko subhaanahu wa taala lañ koy laaj yàllaa ko xam fala tuzakku anfusakum bu kenn jàpp ni kenn huwa moom yàlla aalamu bi ma nit moom xam na kan a gën ci yéen te gën ci yéen ko gën bàyyi xel waaw naka ngay jàpp ni yaa ko yàlla nuux ba mu ko defee xaj rombo xaj muramu ràmm ba saxé te ba ak tank ba nuux wax ci xelam ay way xaj bi mom mom ñaaw na di nii mu mel nii xelam yalla ilham xaj bi xaj bi ni beurit ni ko waxook man de bu ma doon bind sama bopp dooma dàq dooma gën bo ma tiimee nii dima xép ak dima doyadal nii waxok man ki ma bind melal ma nii waxal ak moom loolu ne nanu moo jàpp yonent yàlla nuux bañ mujj ku jox tur woowu nuux mooy jooy ay jooy la mujj jeexalee dundam bañ mujj ku tuddee jooykat bi ndax lan romb lum romb rek jàpp cim xelam lii moom ñaaw na di jàpp cim xelam kii moom naka la mën a mele ni jàpp cim xelam ni moom moo gën lii mu romb moo tax nit yàlla mag bu ñuy wax waysul qarani sallallahu alayhi wa sallama daan na ko siite ci ay waxtaanam ak njàngaleem di wax mbaaxam bokk nañu jamono waaye gisante wuñu xisaam duñ ci dugg ndax day jël temps bi waaye waysul qarani nitu yàlla la woon boo xam bu nit ñi añaan ba jël añ ya tuuri ca pëllu ba fa ñuy sotti ñamu mbaam ya fa la daan dem moom di lekk bu ko defee mbaam ya ku fay fekk ak xaj ya mu koy bokk ak ñoom léeg-léeg xaj yi ni ko aw yow mënoo woon a ci kër ga nga ñëw di añe fii yéen yéenay nit ñi yéen ci kër yi ngeen war a añe ñun xaj yeeg mbaam yi kay ñun mën nanoo añe ci pollu yi waysul xaran yi ni leen loolu de yéen a ko jàpp yéen a ni man maa leen gën waaye loolu seen njort la de man jàpp naa ni yéen a ma gën ndéem yéen a mën añee ci pollu bi mastama ak man kay bii la subhanahu wa di xaar ci ñun fala tuzakku anfusakum bu pal gi tax bu yëre yi tax bu askan wi tax nga jàpp ni da gën kenn huwa aalamu bi man ittaqa yàlla ne gën ci yéen maa xam ay ca mu ni wal hamzu واللمز hamzu mooy nañ ma baal sunu soxna yi ñoo ko gën a mën a jàngale mooy nga toog nit toog nga di ko jiw mi ngi toog kat ngay wax ci moom te moom xamul ni ci moom nga ne loolay alhamzu mi ngi toog mais yaa ngi koy ëyibal te moom xamul ni moom ngay waxal buñ toogoon nii di mbooloo benn soxna ñëw sërëm ba cëkk yeelam ya weex nga dégg ñaar toog naan waaw soo ko si moom dañuy liggéey ba heure bee walla nga dégg ku naan cosmétique yi moom xanaa fan yii eh, diw dafa manqué façon yooyu moom kat mi ngi toog ak yeelam yu weex te xamul ni ñii ci moom lañ ne <laughs> loolu mooy alhamdulilah daa ñaaw Walid ibn Mughira moo ko amee woon muy jikkoom mu daan ko def sallallahu alayhi wa sallama ba mu soofee yàlla yàlla wàccee saar xamal ko ni yow maa ngi xaar ba nga ñëw danaa rëq sa lu waylun li kulli humazatin lumazatin paa bu ñàkk fayda la moo daan def jikkoy jigéen ñooñu di regeju bu yonent bi di romb muy tàllal lamiñ ak yu ni mel hamzu daa xaram wal lëmzu moom mook hamzu nee ñu soriyoo am na sax ñu ni benn bee waaye moom mooy kiy ëyibal ku fi nekkul waaye dafa kook làmmiñam di wax de mais day tàllal làmmiñ wala muy benn ay bët di regeju ak a piis yu ni mel lay def kon hamzu mooy ki muy ëyibal mi ngi toog te xamul ni moom lay waxal lëmzu mooy ki muy ëyibal nekku fi mais du jëw parce que waxul mais ay bët la koy ayibale wala mu koy ayibale ay tuñ wala mu koy ayibale di tàllal làmmiñ moom la olof naan piis ak ngóobeeg yu ni fi may daaneele mbokk yi waxtu waa ngi dem sax Sidi Abdourahman ne bokk na ci araam wala abasu ak mag muy fo fo lanay fo muy léppi loo xam ni yaa nga cay yëngatu te loola doo ci jëlee dërëm doo ci jëlee ngërëm loola am pola waaw nga sonn ca lool mën caa ñaq te lii buñ la nee boo paree luñ lay fay dërëm doo ko wax waaye buñ la nee lii moom ak jaamu yàlla laa séntugo ci lenn tiyaaba loola mooy al mag di ko def daa xaram mag du fo mag du fo sallallahu alayhi wa nee na ñetti fo ñoo dagan góor gi nga xam ni dafay fook soxnam góor gi nga xamni ni soxna xale la amé di fook mom fo momu fo momu am pola mais sallallahu alayhi wa sallam neena garawul fo mi ngay fo di entraîner saw fas ngir minal ko xare ba muy wax jamono jojo xare amoon wala fo gi ngay fooyee sab xéj wala sab fett wala sa jàng ndokh yu ni mel nga xam ni jamono da ko daan soxla ngir sécurité diine ji waaye sécurité société bi yu mel noonu nga di ca nga di ca nga di ca yëngatu sport yi yëpp dugg dégg nga xeeti entraînement yëpp dugg dégg nga yooyu yooyu sallallahu alayhi wa sallam nee na pola waaye mu dagan la mu dagan la waaye bu dul yi rek moom dafa dugg ci alabasu mag muy fa doon dafa xaram subhanahu wa taala nee na man faluwuma fawu luma bu doon am po laa bëgg diggante asamaan ak suuf dinaa ko feeseel dell ak ñu may fowal waaye ngeen jaamuma laa leen sant binduma leen fii pour ngeen di fo afa xasibtumu annama xalaqnaakum abas abasa wala abas foofu mu ni foog ni dama leen di bind ngir ngeen nekk fi nekkee fi am po afa xasibtumu annama abasa mbokk yi nañu daanil fii incha allahu taala ba ëllëg ak jàmm ñu dellu si wàcc yàlla yàlla def ci ñun dégg topp def ko ci yéen di leen woowaat ngir ngeen gën di topp daara jeeg njàngale mi fiy jaar ci seen chaîne youtube boobu di daare Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu Cheikh Mouhamed Ndiaye amee ko waaye amee telegram ba waaye amee itam page facebook ba cours yi fi jaar incha allahu taala ku jokkook moom ci 77 227 66 99 incha allahu taala dana la ko jottali jaajëfal mbokk yi topp ñëpp ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi bitim réew wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu